alhamdulilah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu cosaanu feetu bi Kossy TV aw nit bu ñu xàndooxee ci yàlla te duñu waxante dëgg ñu ngay huru jante bés dana jóg ñu poñaante képp koo xam ne xàgg nga ci yàlla lànk na dootoo julli fan ca xàgg waaye xamoo ko bés boo ko xamee da julli ter bi ñu leen xàgg ci yàlla la waajal tarbiyu leen àgg ci yàlla la yu leen xam yàlla ndax xalimaani faydu bi ñëw xam lañ wax xam danga koy xam danaa ko wax gune yi toujours ci kër gi ne leen xooleen xamagu leen yàlla ku ci xam yàlla na ma wax nu ko ndeyam ak baayam tuddee woon kere ngénteel yàlla la yàlla kere ba mu juddoo ndeyam ak baayam di ko ngénteel wax leen ma nu mu ko tudde rahmaanu métier la allahu métier la xafuuru métier la jabaar waaye yooyu yëpp ay métier la sàmm bii sàmm nay yi nga ne ko gay naa ko mu ne la naam bu ñëwee sangu solu ba rafet boo ko ne gay naa ko du looyu fokk muy demb wala sàmm walla bàcc bon am na tur tur wi nag soo ko xamut doo ko xam te kenn mënu koy xam te dikkoo ci bàyyi fokk nga ne naam ñes bon dangay gis xale bu ñëw tarbiyu ci yow bés ba mu àggee ci yàlla dox sayru mi ci sifa kere nga koy gëj a gis xam na ñoo xam ne sa seen dox sayru ci sifa matut duñ xam ismu duñ xam saatu loolu duñ ca xam dara ñu dem doxi seeni muraadu njëriñ nekkut ca li ma bëgg a wax boo demee ci muqaddam bi di tarbiyu di dox say sayru fii joxul la ijaasa xamal na pare la ijaasa bi moo lay xamal pare nga ijaasa mooy wax ne yow jub nga bon ñi nga xam ne dem nañ bëgg ñu tarbiya leen suñ demee nañ toog bañ a yàkkanti te déglu ki ñooy déglu gis naa nag ñoo xam ne dañuy dem ci sëriñ bi ne ko jox ma ijaasa waaye ca kër maa Ibra Faal moom xamut dem da laaj li ijaasa moom xamut yow daal da ngay dikk jox ko sa bopp su paree ci yow ba jox la ijaasa kër bu la joxee ijaasa dana la wax ne fi ma xàggoon ak bàyyi xàgg naa fa ak yow lii la ma bàyyi xamaloon demal sa yoon booy jàngkat mun a demal jàngi booy borom métier mun a demal ca sa métier ma toogal ba yàlla feeñal la waye ijaza bo xamne ne gis naa ijaasa boo xam dañ ko suyar yóbbu ko ci luuma bi da ko won ni ñi ñuy joxe ñi joxe hadde da laal ci jëmi da la jox dara ngay def ci kafa gi foofu rek ngay hem bi foofu rek ngay hem do am benn talib gis nga Cheikh diane Niass mi khalifa bay bu xëyoon suba xoote ca Mérina ne muqaddam yi nañ ma hoy ci ku ñëw mu ne la an sa ijaasa dana jàpp ñu bari ma de son bos xamu fu ne moom maa Ibra Fall joxoon billaay xaamu fu mu ne xam naa ne mu ngi fi waaye mënu wax ne mu nga barab sàngam safoor nag da nga koy am sa permis mu laa mu jox la bon nangu leen baxee leen seen bopp taaliba bu nekk na baxee boppam sëriñam taaliba bu nekk na baxee boppam sëriñam doo sëriñ neexut de do sëriñ neexut de taalibe bu ci yàkkanti dem laaj lijaasa ñu jox la ko nga dem fële dajale mbooloo bilaay bés dana ñëw nga xam ne do sëriñ neexut do sëriñ neexut de ku yaakaar ne do sëriñ neex na do sëriñ neexut xoolal Cheikh Baye Fall mi bañ ko joxee kàddu li mu wax dafa wax a wax man de fi ma toogoon am na ci loo xam ne maa ngi doon nelaw keneen noonu keneen noonu wax na ba boppam bi de métti ñaari dërëm xamul ko liñ jox si karkari sa moom kenn joxu ko dara dara dara loolu tax ma do neexul te xam ngeen ne fa paas di ko war a paas dellu te joxuñ ko dara dara joxuñ ko bon doo sëriñ neexul de jarul yàkkanti de jarul yàkkanti de jarul yàkkanti soo nanguwu da toppe soo beroo it kenn du la topp walla ku la topp da ko wax lu du dëgg yàkkanti moom santam wa mooy yàqati ngeen bay seen xel bon yenn yàlla boole dimbale ñu yenn yàlla boole dimbale ñu gërëm nañ yenn yàlla gërëm sëriñ bi gërëm nañ yenn yàlla gërëm yéenay liggéey Faydu Baay bi Sidi Barhama ñu ngi leen gërëm ñu ngi leen di ñaanal waa